wa alihi wa sahbihi zawil wa ala xadimihi cheikh ahmadou bamba man fuaaduhu watanar ayat wa ala kulli man athaaru ixtafa ila yawmi ddin sadid lisaani nawwir janaani safi amaani wa zid baraa'i waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa bi arshida mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk téléspectateur macha allahu TSTV Teranga Sénégal ñu ngi leen di nuyu mbokk yi fu ngeen mën a nekk dañu seetaan dañu déglu dañu topp ci jataay bi nga xam ni mooy xayaat Cheikh El Khadim muy dunduk sëriñ bi ngeen baaxoo ko ànd ak seen mbokk Alioune mbay nu tàmbali di nuyoo ak a ziyaare xalif généraux yi nekk ci réew mi yépp bàyyiwuñu fenn ak kenn waaye jël nuyoo boobu teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal ko mu yàgg fi lool ca ànd ak wér bi jaahil xaddimi wa izzatil maqdumi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooleem boroom xam-xam yeeg kilifa diine yi imaam yeeg ustaas yi bàyyiwuñu kenn di nuyu kilifa aada yi waaye ñëw ci tele bi mboolem ñu fi nekk ñëpp nu nuyu leen ziyaare leen ñaanal leen jàmm ñaanal leen tawfiix yàlla yokk télé bi zahiran wa baatinan mbokk seen émission Cheikhul Khadim tey seen mbokk Alioune Mbaye ñu fas yéene ànd lu am solo comme ni ngeen ko baaxoo di gisee ndeysaan sunu tàmbali jataay bii li ngeen di dégg xustu xayaatan la turaali xayri murjizatan baanat li usni xayri Cheikh Ahmadou Bamba wax ni yàlla sunu borom may na ma dund dund goo xamante ni bii dee su ko gis wala nga dégg ko ci feneen wala ci keneen ku man mbokk yi boobu it noonu lañ seetloo ñun ñëpp ginnaaw bi ñu jugee ci cofeel gi mu am ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moom model la ci doomu aadama nan la war a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag mel na ni jataay bi nu ngi yëg ni mu ngi am solo waaye mu ngi sedd xol waaye si Ahmadou Bamba la yàlla def mu doon jëmm joo xam ni waxtaane ko day seral xol waaye dafay dëgëral ay cër dafay sawarloo ay cër jëmmam ju màgg jooju nga xam ni kenn la ci jamonoom waaye doon koo xamante ni bi ku yéeme na la ci jamonoom waaye xaadimu rasul sallallahu alayhi wa doon liggéeykatu yonent bi alayhi salaatu wa salaam si Amadou Bamba jëmm ji nga xamante ni bi xadaa jamii anfaasihi fi xidmati diin wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bayna madxin wa salaat alayhi jëmm joo xam ni mboolem dundam gépp gépp da ko jaayante jox ko diine waaye dundam gépp nag mu jox ko muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci diggante di ko tagg ak du julli ci moom fu mu toll comme ni mu ko waxee salaatu sitta bi madaxe sitta ta ti iba ta maati yi mbokk yi moo tax tey dundam googu nga xamante ni bii lépp da ko jaayanteek boroomam nekk ab jaamam waaye nekk liggéeykat rasulullahi sallallahu moo tax tey ñu tànnaloon leen thème bu tudd min mawaahibi cheikhil xadim mooy bokk ci li nga xamante ni bi yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo ko ko may ay may la yoo xam ne borom bi subhanahu wa moo ko ko jagleel loolu nag fi ñuy tàmbalee nun jullit yi dañuy wax alhamdulilah yàlla borom bi nga xamante ni bi moonu may ñun jullit yi ci bi sifati amma ñun ñëpp waaye ñun sénégalais yit rawatina bi sifatil xas waaye rawatina nag ñun taalibe yi nga xamante ni bii ñoo ko topp yaakaar ko a feeñal ku mel ni Cheikh Amadou Bamba ci sunu biir nga xam ni nit ku ñuul la waaye yàlla sunu borom def nag muy mu du diin mooy ñi nga xamante ni bii yàlla def leen a may nu yiisal diine yi xayrul bashar muy seyduna muhammad sallallahu waaye mu yeesale diine yonent bi fi fii xarni raabi achar te yonent bi moo waxoon tuuba liman balaga miat miata rabaati baadal alf loolu yonent bi moo junjoon miata rabaati baadal alf léegi nag mu jaddidu diine googu moom moo waxoon Cheikh Amadou Bamba ni yàlla sunu borom ñi mu tànn bari na waaye du ñëpp ñoo doon ay mu jaddidu diin moo waxoon ni man nag yàlla sunu borom moo may ba bokk ci ñi yeesal diini lislaam diinun siwa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu nee na diinun siwaa islaamihi laa yuhmadu jeneen diine judul sunu lislaam ji nee na dee su ko gërëm ca yàlla waaye nun diine jooji dey moom la yàlla baaxe nu jaddidu moom la yeesalaat waaye sunna si yonent boobu nga xam ni sallallahu alayhi moom la dundal dafa wax ni nazaafatuhu kulli min allaghwi taharat wa sunnatuhu inchaa rabbi ubayinu nee na yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo setal sama lépp ci ay neen waaye sunnaam sii nag bu soobee yàlla man dey danaan leeral sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi mbokk yi kon moo tax Cheikh Ahmadou Bamba yàlla sunu boroom may ko may yoo xamante ni bii doo ko gis gannaawam waaye ñi ko jiitu woon it doo ca dégg ko yàlla sunu boroom may may yooyee loola nag incha allahu rabbi danañ ci junj lu bare loo xamante ni bii ay waxam la waaye mu nekk loo xam ni moo ko bindal boppam waaye léeg ñu tegtaloo loo xamante ni bii ay nettali la te ñu ko toppoon ñu dëgër loo leen noo fekkee sëriñ bi wax loolee su ko defee loola nit day bu bu ma dégloo dana laaj moom loolu nan la mën a nekke sëñ Tuubaa si Ahmadou Bamba nan la ko yàlla maye may yoo xamante ni bii kenn mësu koo am waaye loolu lépp nag dana dal dana dalal xel bu baax a baax a baax ndax moom waxtaane ay mbiram waxtaane ay waxam daa doon loo xamante ni bii macha allahu borom taxawaay bu njëkk bi dafa doon koo xam ne yàlla moo ko jagleel ay may yoo xamante ni bii yàlla moo ko may mbokk yi sëñ tubaa bokk na ci li ko suñ borom may mooy nuru gu mu nuru yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay may loole danaa ca teg baaraam ci turam wu gën a siiw yi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ doon waaye tur yi moom rek moo ko am muy xaadim boo ko waxee rek sa xel ci borom tubaa lay dem waaye léeg-léeg nga ni xadim xadimu rasul xaadimu rasul xadimu rasul moom de bi muy tàmbali yàlla sunu borom da ko defoon xaadim xaadim mooy kuy liggéey di wàcc di dem di noppalu ji waaye nag moom dafa mujj jeexel xadim nekk koo xamante ne bii liggéey gi muy liggéey sallallahu alayhi moom amatul wàcc léegi dafa sax ci di liggéey donte bi xaadim day liggéey di noppalu mbaa muy jëllal waaye xadim nag yàlla suñ borom moo ko yéege foofe loolee da ko nuru yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi sallallahu alayhi ba muy tàmbali sunu borom dafa doonoon shahid waaye ak mujjëm ku ne xam na ni shahid la moom sallallahu alayhi wa te loole moo wax alxuraan moo nu ko nettali alxuraanul karim boo demee yàlla sunu borom moo nu yonent bi inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila firawna rasula yéen day dama indi ci yéen ab yonent boo xamante ni bi shahid la seede la doon ci yéen comme ni mu yónnee woon ci firawna ab yonent mu yont yàlla Muusa waaye gis nga loolu yonent bi day dem yàlla sunu borom du yokk maqaamaam ba mu yàgg mu wax ko fa euh, fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haulaay shahida allahu akbar gis nga yonent bi shahid la koy yàlla defoon waaye dem na ba ma yem yokk mu def ko shahid Cheikh Ahmadou Bamba nag loolu da ko nuru yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu tàmbalee xaadim nga daan dégg waaye mujj gi rek yàlla sunu borom def ko moo doon xadim xadimul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam xolal bi muy dem ci tukkeem bi la waxoon baatu xaadim la jëfandikoo waaye bi mu demee ba ci biir tukki bi xadim lay jëfandikoo dama dem daa waxoon sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li xawmi waaye wa an akuna xaadiman fi mi sama sababu tukki bi yàlla moo ma nar a may ay daraja waaye yàlla moo nar ma doon ku nar a ràmm sama xeet waaye yàlla def ma ma doon kuy liggéey yonent bi liggéey bu sax liggéey boobu bi mu koy wax dani waan akuuna xaadiman fi daw mi kon ma doon koo xam ni damay liggéey yonent bi ci lu sax waaye booba li mu jëfandikoo mooy baatu xaadim waaye dem nañ rek ba bi mu départ ci tukkeem bi nga dégg mu tàmbali ni allamani rahmaanu fi safina bi annani xadim xadimu zil madina yàlla xamal na ma bi ma nekk ci biir gaal gi rek fii ci ndakaaru yàlla xamal na ma léegi nag loolee nga doon wut mooy doon xadiim yàlla sunu borom may na la ko doon xadimu zil madina doon liggéeykatu liggéey bu sax ki nga xamante ni bii mooy yontu bi sallallahu alayhi wa sallam borom madinatul munawara moo tax may yooyu ma junj ni sunu borom may na ko ko nee na yàlla may na ma loo xam ni mayu ko keneen bayit woowu siiw na. bokk na ci la ñuy wax ñun ñépp te mokkal ko illa yaqaada laahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li ni mu ne man dey man mii ilayya yàlla wommat na ma xaada xaadallaahu ilayya yàlla wommat na mu jëm ci man maa lam ni loo xam ni kenn mësu koo am wala yakunu abadan li ni kenn nit du ko amaat sama gannaaw yàlla may na ma loo xam ni mayu ko kenn te du ko may kenn loolu lu wax ju réeree la joo xam ni moo ko wax nga xamante ni bii boo seetloo baytu yi nga xam ne dañ koy faral jàng mu nekk ca xasit ak jaawartu mu siiw lool ndeysaan sa xel day dem ci moom nan la amee ñu ko fi jiitu ba pare borom bi subhaanahu wa la mën koo may loo xam ne mayu ko woon ñu ko jiitu woon loolu bu dee ab laaj la dangay taxaw ci tontu moom de waxoon na wax ju rëy rëy wax ju màgg màgg màgg màgg waxoon na ni yejji du nii inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir allahu akbar yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir sëñ tubaa mu ne man dey bépp nit yàlla bu ngeen fiy dégg rek dafa ñëw ca sunu borom fekk ma fa kon man rawantewu maa ngi nit yàlla yàlla moo soob ci coobareem mu def ma ma jiitu ku ñëw rek danga ma fekk sunu borom am na mag ñum doon waxtaanal ni leen góor yàlla yi de rawanteewu ma ak ñoom ah nu ne ko kon nag noo def ba jiitu leen mu ne sama waajur wu jigéen wax soxna jaaratullahi mariama buso mi ñuy waajal poroxaan nee na moom mais ndeysaan moo moo moo rawante góor yàlla yi raw leen moo rawante góor laa yow leen moo tax ñoom ñëpp nag kullu waliyin lil janaani yëpp tëdir yajidu nii inda malikin muqtadir kullu waliyin lil janaani yëpp tëdir waaye gis nga it nag Cheikh Ahmadou bàmba ay mayam daa wax ni nit rek nii nit ku simple nii rek moo ko dul xam waaye sunu boroom képp koo xamante ni bi may na la ngay doon xejj ci moom nga doon wëlii nee na leer na la ni man moom kawtéefu sunu borom laa Sëñ Tuubaa kawtéefu sunu borom mooy aayatun min aayatillaahi kéemtaan la ci kéemtaanu sunu borom yi lu yéeme la nit ku yéeme jëmm ji yéeme waaye nag nee na looloo képp ko yàlla may nga doon waliyu xam nga ko baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaalixil baraaya mu ne leer na ci képp koo xamante ni bii am nga wilaaya loolu leer na baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaali xaalixil baraaya aaya leer na la ni man dey ci ki nga xam ni moo bind mbindee fi muy suñ borom ah man keew teefu suñ borom laa moo tax nee na mu leeral nii yàlla suñu borom lii mu ma may yàlla daf ma ko may ci coobareem bi machiatillaahi nee na yàlla moo ma may waaye li ma may namoo ma ko de coobare ak sunu la dogalu sunu boroom la yàlla sunu boroom moo dogal ca ba muy dogal ni man ba ma ñëwee ma jiitu moo tax mu waxoon ni wahabalil wahabu maa lam yusbaqi lahu minal muna wa xaalali isbaqi wahabalil wahabu yàlla mi nga xam ni mooy aji maye kon gis nga nee na loolu yépp nañ ko delloo sunu borom yàlla mi nga xam ne mooy aji maye moo ma may loo xam ni kenn sa jiitu ci ma yooya la ma yàlla may kenn musta kenn musuma caa jiitu maa ko njëkk am kenn amu ko loxoo minal mun a wax xaal isbex yàlla it moomee moo ma may ni ma jiitul yàlla sunu borom moo ma may ni ma jiitul waaye gis nga it nee na noonee yàlla sunu borom jiitale ma nag nee na noonu laa jiitoo ci ñiy liggéeyal yont bi sallallahu alayhi wa sallam bi ku fi mës a jaar di ko jiital nee na yàlla suñu borom moo ma may ma jiitu ñi liggéey Yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ni nii ndeysaan nguurug suñu borom gi moo ma def asnal xadim jaalani asnal xadim mulkul lazil baaqil qadim jaalani asnal xadim liman lahu fadlu ñu wasaanani fi yàlla moo ñoŋal sama liggéey waaye nguurug suñu borom gi moo ma nome ma doon asnal xadim mooy ki gën a yëkkatiku ci ñi liggéey Yonent bi sallallahu alayhi moo tax ma waxoon ni man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada fa garrahu dalaalu wal idlaalu yanqaadu li minhu bihi alxalaalu sëñ Tuubaa nee na képp koo xamante ni bii dangaa njortu ni liggéeyal nga yonent bi sallallahu alayhi wa lu doy ni li ma ko liggéeyal nee na ah liggéey bi ma liggéey yonent bi ku ne lottu nga ci wana an mislihi kullu wali bépp nitu yàlla képp ku mës a liggéey yonent bi daal liggéey bi ma ko liggéey lottu nga ci liggéeyal ko liggéey bi doy noonee moo tax nag ku njort ni am na ku ma jiitu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa garrahul dalaalu wal idlaalu yan xaadulu minhu bihil xalaalu moo tax nee na kooka daa réer ak réer réer ak réeral moo nekk ci moom waaye man yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara jiituma ci moom su ko defee nag loolee bokk ci may bi nga xamante ni bii nee na loolu yàlla sunu boroom la soob mu nekk lu kawe kawe kawe sëñ tubaa mak ah, makkaan bi nga xamante ni bii am na ko sunu boroom muy loo xamante ni bii ndeysaan dafa bokk ci mayam yi gën a tedd yàlla sunu borom mayul benn jaamam ni la loola neex nga def te it loo bëgg ma defal la ko. sëñ tubaa nee na man sunu borom may na ma lool te loolu mbokk yi noonu noo koy jàng bis bu ne bañ koo settantal akramtani ikraama man macha faal wa kullama aradtuhu min kan faal nee na yàlla borom bi subhaanahu wa taala akramtani yàlla sunu borom teral na ma ikraama man macha faal teraa nga joo xam ne daal mooy lu la neex defal waaye nag wa kullama aradtuhu min ka faal yàlla sun borom ni ma daal lépp loo xam ne bëgg naa ko ci moom rek li mu nam ma ci sunu borom rek sunu borom dana def loola moo tax mbokk yi tedd yi jàkkaarloog ñun duñu seetaan nëbbuwut làquwul ni sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy tiitaroo xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa dañuy tiitaroo Cheikh Ahmadou Bamba waaye yonent boobu Muhammad sallallahu alayhi wa day tiitaroo Cheikh Ahmadou Bamba moom nag ay waxam ay mbiram loo ci wax rek da war a génne am bindam teg moo waxoon ni yonent bi day def may tiitaroo man muhammadunul muxtaaru ba haabiyal waraa nee na yonent boobu nga xam ni moom la yàlla tànn seyduna muhammad nee na ba haabiyal waraa daf may tiitaroo ci kanamu mindeefi daf may tiitaroo ci kanamu mindeefi kon nag alayhi salaama xayra man jaada bil wax yi yàlla na yàlla julli ak sëlmal ci seyduna muhammad moom nga xam ne dafa may tiitaroo nee na ba yomal xayaame bu ñi teg ji nekk ko teewee nee na ba yàlla sunu borom at atte penc mépp nee na rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dana ma yëkkati ci kanamu mboolem lu yàlla mu sa bind nee na di ma tiitaroo bi alwara la wax alwara min def yëpp nee na yontu bi sallallahu alayhi di ma tiitaroo ci ñoom moo tax bokk na ci mayam yi gën a tedd it nee na noonee ma yontu bi sallallahu alayhi wasallam def sunu borom def ma noonu it mboolem nit ñu baax ñëpp noonu lañ maase def ma noonu ndeysaan borom njaareem borom taxawaay bu njëkk bii nee na ñoo ñépp dañoo maase di ma tiitaroo moo tax nee na xulafaau rachidun wa gayrihim min as-saalihin ak ñeneen ñu dul ñoom ci nit ñu baax ñi nee na ñoom ñépp dañu ma gërëm ngërëm lu sax waaye it dañ may tiitaroo ci su kanamu sun borom moo tax mu tudd ñenn ñoo xamante ni bii loolo bokk na ci kawteef gi gën a rey ci moom mooy ñum bokkut ak jamono ci borom tarixa yi ñu di ko gërëm mu tàmbalee ca wayam ja radiya anni sibtuhul jilaani alayhi ridwanul mubidil jaani wala radiya anni sibtuhul jilaani alayhi ridwanul lazi alaani mu ne sëtam yonentu boobu sallallahu alayhi wa di cheikh abdul xaadir jilaani gërëm na ma tiitaroo na waaye gërëm na ma radiya anniya radiya sibtuhu abul xasan abu xasan achazali di borom muk nee na gërëm na ma kon nag alayhi ridwa alayhi ridwaanu yu xalilul xasan yal na yàlla moom it jox ko ngërëm loo xam ne dafay sax ba mu yàgg mu ne raddiya annihu raddiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mubidil jaani mu ne sëtub yonent ba sallallahu alayhi wa sallam di cheikh ahmada tijaani abul abbas nee na gërëm na ma gërëm lu sax a sax a sax lu sax dàq sëñ tubaa nag loolu kon may may la yoo xamante ne bii kenn mësu koo am boroomu tarixa yoo xamante ni bokkook ñoom jamono waaye nga ñëw liggéey ci seen gannaaw liggéey boo xamante ni bii ñoom yàlla sunu borom daf leen di mayaat ñuy ñëw di la gërëm loola benn wàlliwu mosu ko am ku dul Cheikh Amadou Bamba moo tax bi mu waxee ñii mel ni fit dafa dafa rëcc nan ngay bañ a bokk ak jamono Cheikh Abdou Khadir Jilaani mu delsi di la gërëm Abul Hasan Achazali mu delsi di la gërëm Cheikh Ahmad mu delsi di la gërëm mu ne ñooñ sax yemu ca ndax man radiya anni xulafaaul arbaa hostore daan muqarrabina al mutbaa mu ne ñooñu day biñ ma gërëmee ba noppi sax xulafaul arbaa mooy ñeenti ñooñee nga xamante ne bii ñoo wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàmbalee ci seydina abou bakar seydina omar seydina ousmane seydina alin aha nee na ñoom ñëpp radiallahu anhum nee na maase nañ ci di ma gërëm ba mu yàgg mu ne xosto ridal muqarrabin al mutbaa man day mboolem ñi jegeeñ yàlla te topp ci ñii sax nee na ñoom ñëpp maase nañ di ma gërëm sëñ bi nee na man la yàlla may ma doon koo xamante ni bii al ahyaa minhum mooy mboolem nit ñi àdduna bi yëpp ñi yàlla bind ñi ca bàmmeel ak ñii dund ñoom ñëpp gërëm nañu ma moo tax mu yàgg na ni man lam yakun anniya yarda fal karim raddiya anniya ridan laysa yarim moo tax ku ma gërëmut yaa cay ñaawe ku ma gërëmut yàlla gërëm na ma waaye ñii itam gërëm nañ ma ngërëm loo xam ni ngërëm lu sax dàq la mbokk kon xam naa boo ma dégloo di nga laaj ab laaj daal ni waaw moom sëñ Tuubaa si baam Bamba moom nan la mën a jiitoo yàlla sunu mboroom jiital ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiital ko ci kaw ñëpp am fi ñoo xamante ni bii bokkut ak ñoom jamono moo leen mujj a ñëw sëñ Tuubaa ni man de loola maa ko amee ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tagg yonent bi nee na moom may lépp nga dem ca xasida mi daal mu ne. tawaytu tariqal xawmi waxtamtidaahihi waaye wali qad xadal xaajaati ba rawdi wal basti sëñ bi nee na man day tawaytu xaw mi yoonu gaa yu baax yooyee tawaytu man de lem naa ko ñu ne ko kañ nga ko lem mu ne waxtamtidaahihi jamono jamay tagg yonte bi rek la ma yàlla sunu borom di taxañal yoonu gaa yu baax yi mbokk su ma la expliqué ba mu leer nee nit ñi fi jaaroon di jaamu sunu borom di liggéey Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na luñ mës a jaamu yàlla ci am at su ma ko jaamoo yàlla weer yàlla sunu borom nangul ma loole luñ jaamu yàlla ci am weer su ma ko jaamoo yàlla semaine mu nangul ma loolee luñ jaamu yàlla ci semaine su ma ko jaamoo yàlla ci benn bis rek sunu borom def ma loole loolu mënees na koo déggee ci maanaay xaw li tawaytu tariqal xaw mi wax tamti daahi yii waaye nag wali xat xadal xaajaati bi raw di wolu sama nee na sunu borom samay aajo su koy faj da koy taxañ moo tax jiitu googu mu jiitu nee na taxañ gi ma taxañ yoonu gaa yu baax yi nee na moo tax yàlla sunu boroom mujj daal jiital ma ci mboolem nit yi nit ñu baax ñi moo tax dégg gii ñu am Abdullahi Salah At-Tandaxi moom dafa amoon dégg googee dafay xool sëñ bi ba mu yàgg xool ay mayam ni may yi reyee mu daani waaye nag waruñoo jaaxal ndax bu ñu xoolee ca sangam ba sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek war na ñoo mën a noppul nag ci jiitu mujj ñëw ba pare jiitu loolu mënees na koo dégg ci moom mu daan ni sëñ tubaa yow la in foqta kullal awliyaai mutaaxiran fa xayrul baraya fi xuróonil awaaxiri ah yow di si Amadou bàmb bu fekkente ni nii yaa gën a kawe mboolem nitu yàlla yi ba pare mujj cee ñëw loola dégg gi mën naa yomb ñu laaj Abdullahi ibnu Salah Atandari noo koy dégg mu ne fa xayrul baraya fii xurun awaaxiri mu ne xanaa gisuloon yonente bi sallallahu alayhi wa lu yàlla bind Seydina Muhammad moo tax te nag nee na ci xarnu yu mujj ci la ko yàlla borom yónni te lu yàlla bind moo ci gën lu yàlla bind moo tax sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëñ Tubaa loolu may la yoo xam ne jiitu gi nee na loolu may ak sunu borom gu ma may su ko defee nag bi ci des mooy nee na it sunu borom dafa maa may may goo xam ni kenn mënu ko am. mooy ñun ñëpp ay liggéey lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ak sama gaa yi ma boo jàkkaar lool ñun ñëpp ay liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ waaye nag sëñ Tuubaa nee na man maa jagoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàkk ci sunu boroom ni man ma liggéeyal ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wa moomu. nee na yontu boobu alayhi salaatu wa salaam nee na moo sàkk suñu borom ni ko dama bëgg Ahmadou Bamba mii bokk ci ñi may liggéeyal waaye damaa bëgg Ahmadou Bamba ñëw dama liggéeyal mbokk yi nag jagoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la liggéeyloo ak liggéeyal yonent bi différence am na wute bu bare bare bare bare moo wax ni ala allazi talaba kawniyal xadim lohoo salaama zil bariyatil xadim ca maa ngi julli ci ka nga xam ni ala lazi talaba maa ngi sàkku ci ki nga xam ni moo sàkku kaw niyal xadim ma doon ab liggéeykatam lohoo salaamazil bariyatil xam kon yontu boobu yàlla na julleeg sëlmal nekk ci moom moom mi nga xamante ni bi moo jiitu ci mooram mbindeef yi am na feneen fu mu waxee ni raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimuhu wa abdillahi mu ne raama rasulullahi yontu bi moo sàkku mi ilaahi ci sunu boroom man ma doon koo xamante ni bii dama koy liggéeyal nee na loolu yàlla man la ko jagleel xam nga nag yonent bi sallallahu alayhi wal fadlu inda rasulillahi garaaru raamal wala raamal wara fadla musri'ina lahu wal fadlu inda rasulillahi garaaru sëñ nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngëneel ñépp dañoo daw daw wuti ngëneel waaye ngëneel ngëneel njuuy leen dem ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye lool it mel na ni moom yàlla defal na ko yonent bi la ñëpp liggéeyal moom la ñëpp julli sëlmu ci moom waaye nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma tànn ni suñu borom kii nag maa bëgg nag maa bëgg nag kii liggéeyal ma moom kii moom maa bëgg mu liggéeyal ma moo tax nee na may way yonent bi sallallahu alayhi wa way yoo xam ni kenn mësu ko koo way di ko tagg taggin woo xam ni kenn mësu ko koo tagg waaye di ko liggéeyal liggéey boo xam ni kenn mësu ko koo liggéeyal ba mu yàgg sax mu daan ni man dey li wa ma yonte bi moo waqanteeg man ci sunu boroom lu tax ma sax ci di ko tagg yuqaatibu nii maa qiida lii bim da xannahu madihan ajiban mufhiman faayiqa ra'yi allahu akbar mu ne yuqaatibu nii maa xiida bim da xannahu dafa am lu waqanteeg man loo xam ni loolu moo ma tënk ci may tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, nee na loolu du neen de yàlla borom bi moo déewanteeg mat loo xam ni muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo déewanteeg loo xam ni nee na loolee moo ma tënk ci may tagg rasulullahi sallallahu alayhi moo tax nag way yooyee dafa nekk madixan ajiban ay way yu yéeme sëñ Tuubaa ni mu way yoonte bi way yu yéeme yéeme yéeme waaye muf iman mu nekk way yoo xam ne ku ko dégg wedam ku ko dégg la nga koy teg rek mooy ëskay daa dootu mën a wax dara wedam ngay def sa làmmiñ daal dem waaye nag nee na way yi ma way yoonte bi faa iqa rë yi nee na yontu li ma ko way dafa dafa jéggi am xel dafa jéggi am xel la borom bu seeru doon def ndeysaan ba muy way yonent bi rek ca xasdatu burdu bi ñuy jàng ci bi weeru gàmm feeñee ndeysaan loolee sëñ tubaa na moo tax manit fa ay xër yi waaw waaw fa annahu xayru xalqillaahi kullihimi xam nga xel mu ngi yem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara jaam waaye bu seeri nee na ba ma gagee yonent bi moom feeñu daan ni waa annahu doonahu afkaarun wa afkaarun doonahu aqlun wa afkaaru la sëñ tubaa wax ca raaya sëñ tubaa nee na raw na xel raw nay xalaat yontu bi sallallahu wa waaye nee na yi ma ko wayit faayiqa ra'yi nee na nit mu ta xalaat way yooyu ni mu mel ci taar ba mu yàgg bu ne lisaanu xaal moo ma digtal ma doon liggéeykatu rasulullahi sallallahu alayhi lisaanul xaali lii kun xadima man xamaaka anil akdaari billahi za rayi mu ne lisaanu xaal moo ñëw ni ma kun xadima man yow nekkal liggéeykatu ki nga xam ni xamaaka anil akdaari moom day moo war a aar ci ay nëx-nëx sëñ Tuubaa nee man aw ma daray nëx-nëx loolee ma ki ma aar nag ci ay nëx-nëx ba aw ma benn nëx-nëx aw ma benn gàkk-gàkk mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na lisaanu xaal nag ñëw ni ma waay yaqulu lisaanu xaal lii moo ma ni lisaanu xaal moo ma ni kun xadima man xamaaka anil akdaari zaraa yi moo tax loole nekk loo xamante ni bii may ya loo xamante ni bii sunu borom moo ko ko may su ko defee nag eh, lii dana tegtaloo ci sëñ bi nekk gi nga xamante ni bii nekk na ko liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nee na yonent boobu ñëpp ni ñu maasee ji di ko liggéeyal dinaa la ci jox misaal ni moom day am na lu yàlla sunu borom digal jaam ñëpp ba mu yàgg mu ber yonent bi nag jox ko ci ndigal loo xam ni moom dong moo ko am xam ngeen ni. yàlla sunu borom moo digal jullit yépp soñu leen ci nañuy jug guddi di naafila ci alxuraan inna inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min sulusi leyli wa nisfihi wa sulusihi wa taifatun min allazina maaka ba aaya jeex waaye alxuraan dem ba ci biir mën a yonente bi wa minal wa minal leyli fattahaj bihi laka ansa an yabasa rabbuka maqaaman mahmuda kon loolu yonente bi jagoom jag jogom la yonente bi yàlla sunu borom ñépp la digal nuy mën di jug guddi dinaa fi la waaye ba mu dàgg nag mën a yonte bi yow nag jugal guddi yow moom boo bëggee suñ borom may la maqaama moo xam ni mu ñu sant la mu ñu gërëm lañ faaw rek yow jug guddi doon farata ci yow sëñ Tuubaa nag nee na loolu laay misaal ci ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp a maase di ko tagg waaye man nag dafa am lu waxanteeg man loo xamante ni bii moo tax mënumaa yem ak nit ñi tagg rasulullahi salaam daa mel ni da dafay doon farata ci man su ko defee nag ah foofu nuy ñuy teg suñu baaraam mooy yi nga xamante ni bi sunu borom may na ko ko mu doon ma yu yéeme yéeme yàlla suñu borom may ko mu doon jëmm joo xamante ni bi dafa daan tontu am xel dafa daan tontu am xel loole nag damay ñëw eh, teg sama baaraam ci benn rek ci waykati réew mii koo xamante ni bi boroom xam-xam bu mag la muy sëñ Ibrahima jub al Mash'ari yi mbokk yi Cheikh Ibrahima Diop al Mash'ari daa doonoon jëmm joo xam ni lu ko booleeg sëñ Tuubaa lu yéeme la lu kéemtaanu la moom yàlla dafa dogal bi sëñ bi demee ci tukki bi dem ci géej gi mu ne ci réew mi di nitu yàlla di borom xam-xam waaye yàlla sunu borom it natt ko mu am ay bor nee na réew mi yëpp dem na di sàkku ku ko fa fayal bor yooyee nga xam ne boru juróomi téeméer la amoon nee réew mi kum xam rek yaakaar la dem na ci yow. ngir ngir nga fayal fayal ko bor yi mu dem ba naago ni àdduna bi daal ku ko mën a fayal borom yi sax amu fi ah comme borom xam-xam la mu ne léegi xam nga nu may def comme juróomi téeméer la am bor te am naa juróom ñu ma xam te kenn gën ca naa jël kenn ku nekk ma jox la ab téeméer séddale leen ko ndax ñu fayal ma bor bi nag ci seen daraja daa di bind xasida ñi muy ñi muy wax pour ñu fayal ko bor bor yooyee te boobu sëñ Tuubaa mu ngi ci géej gi nii benn bor téeméer bi jox naa ko Muhammadu Rasulullah na ma ko fayal ba ca des Seydina Aboubacar ba ca Seydina Omar ba ca Seydina Ousmane ba ca Seydina Ali radiyallahu taala anhum ajmain daal ni kon ñii nañ ma nañ ma fayal bor mi daal def ak xasida def nag musul xasida gi leen yi té téye nag ndey ji bi yàlla dogalee sëñ Tuubaa ñibbisi ci géej gi si Ahmadou baam ba ba tollu sànnoo si mu dégg ko booba li ñuy wax découragé na waaye mu daal di dem gisee ak sëñ Tuubaa nee dafa ñëw rek ni tëll fi ñu koy ziare rek nee na sëñ bi daal di koy joxoñ ñaari mbuus yu def xaalis te gan la goo xam ne gan moom ku ko am xanaa doo ko yónni ci sa euh, ci sa ci sa banque wala nga yónni ko ci sa pochette wala fa ngay denc xaalis ci gaalu xaalis gi nee na sëñ bi ba mu nuyoo moom rek sëñ bi da ko joxoñ mbuus boobu ne ko booleel ma ko nee na mu daal di koy boole xool xaalis bi mu nee na mu nekk juróomi mu nekk. juróom benn téeméer nee na mu ne ko ber ci ab téeméer nee na mu ber ko mu daal ni ko ca saasi jëlal juróomi téeméer yi dimbali ko ci say aajo nee na mu daal di tudd yàlla daal di ndax kii moom man dañ koo waxoon sama mbir lu jiitu may ñëw fii <clears throat> daal di génn xasaayit gi ni ko man dama amoon borom juróomi téeméer ba lii laa mujj wax ci boru juróomi téeméer gi tey nga fayal ma ko kon nag yow nit la koo xamante ni bii li may daal def daal mooy bàyyi naa lépp jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira samay nooyi daal li ci des. jaayante na ak yow topp ci sa ginnaaw xasida gam bindoon nag daa fa waxoon ni euh, fa alayya adyanu ixwatin xasamtumuha baynal kiraami laala an yaqduha ma ne dama am bor ay mbokk yoo xam ne dama koo séddale ci nit ñu tedd ña ndax ñu fayal ma ko fa alayka yaa muxtaaru awalu xismatin yow mi yàlla tànn seyduna muhammad waaye yaa moom benn juróomi téeméer bi wa alayka yaa siddiqina thaniha ñaareelu téeméer bi jox naa ko këla dëggal muy seyduna abubakar yàlla na ma ko fayal wa alayka yaa faaruqu saalisu qismatin wa alayka yaa usmaana naataaliha yow mi nga xam ne yay faaruq Seydina Omar fayal ma benn téeméer wa alayka yaa usmaana naataaliha yow Seydina Ousmane fayal ma beneen téeméer bi daal ñëw ci sama turndoo Seydina Ali wa alayka yaa laysal kataibi yaa abal xasanayni nuuri diinina baaqiha téeméer bi des nag jox naa ko gayndeek yéeféer yi kooku nga xam ne mooy bàyyi xasan ak xuseynu leeru suñu diine jii nga xam ne Cheikh Abdou Khadre Jilaani fa la cosaanoo waaye Cheikh Ahmada Tidiane fa la yow bi des juróomi téeméer fay naa ko daan ni leen nag yéen antum kiraamun laa yaloosu bi jaahikum shaaki nawaayi bi fastana shaakiha yéen day ñu tedd ngeen ñoo xam ne amul kenn koo xam ne dana sukkandiku seen daraja ñaan yàlla te yàlla du ko may loolo fa aleykum aska salaatillahi ma bikum alxawaaju xat xadaa xaadiha waaye yàlla na yàlla dolli ci yéen xéewal ngeen fayal ma sama aayu jooju nee na nag bi mu gisee sëñ Tubaa sëñ tubaa ko fayal juróomi téeméer yooyu ba jox ko ab téeméer boo xam ne nee da koy def ci ay aajoom nee na mu daal di yuuxu daal di leen jël sëñ daal di wan euh, xaside googee sëñ tubaa ni ko nag li des ci sama dund jox naa la sama nuyu gépp su ko defee nag loola mbokk yi doon loo xam ne ci may sëñ tubaa la bokk moo tax si Ibrahima mii daana wax ni maali li bagdaara shawqin wala faasin lakin bi ruyaa jolof xat birtu an faasi <laughs> moom mujj wax naan a ah, man dey awma cofeel aw ma aajo ci Bagdad aw ma aajo ci Faas nee na bi ma gisee ka nga xamante ni bii moo nekk ca Jolof nee na kooku laa mujj jaay samay noy kon nag mbokk yi yàlla yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal tawféex Cheikh du Bamba mu ngoog ay mayam ma ngoog waaye li ñu fi wax yëpp li muy yéeme yéeme yéeme yéeme am na ko ko waxoon ni ko foroslu law lam takun bil Mustafa xotimat xul naa la anta rasulul rasul wajhul talq yow de bu fekkonte ni yonent yi jeexewuñ ci yonent bi dañuy wax ne yow yaay yonentu xeet wi moo tax nag li ñuy fi ñuy daanee la mooy li ñuy wax yëpp muy ci mayam sëñ Tuubaa nee na man loolu gisuma ni dara la gisuma ni xar baax la gisuma ni kéemaan la ñu ne ko mbàkke lan mooy kéemaan mu ne karaamatul wali an la yansiya fi zahirin wa batinin in onsiya nee na karaamay nitu yàlla dëgg dëgg dëgg mooy mu doon koo xamante ni bii du mooy yàlla ci zahir waaye du mooy yàlla ci baatin ci zahir ak ci baatin yaa noonu yàlla dafa dégg jaamu yàlla ak wéetal ko ak sellal ko dëgg-dëgg sellal teg ko ci xam-xam rek la fi jaar ba jëfandikoo yàlla noonu yàlla xiir ci ay bëggam waaye moom it lool rek lay xaar ci nu yàlla na suñu borom dëgëral kon nag bu ko defee mbokk ñu sant ñëpp ñu ñu àndaloon ci caméra bi ñaareel leen jàmm ak tawféex ñi ñuy déglu ñëpp yàlla suñu borom defal leen jàmm waaye beral nuyoo Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Serigne Cheikh moom Serigne Modou Fati Xëri ñaanal ko yàlla suñu borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér lool bi jaaxel xaddimi wa zatil maxdumi sallallahu alayhi wa sallam kon nag li mu nekkoon seen jotaay tey xayaatu Cheikh al Xadim yeneen nag seen mbokk Alioune Mbaye wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu معجزة بان لحسن خير يجود للجواد بالديان حسايا